salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet ñu ngi nuyu ñëpp di taaxal li ñëpp kontaan nañ ci yëpp Thiat comédien alias doomu réew mi moom ngeen jàkkaarloo tey nag li ma leen indil mooy ki ëpp xam-xam ci réew mi ñu gën ko xam ci docteur Ahmed Diop mbëkk borom yàllaay kese Ahmed Diop Fall mbëkk ñu lay nuyu. ah asalaamaaleykum àdduna bi yëpp maa ngi leen di siyaar bu baax a baax oustaz Ahmed Diop mbëkk mu leen di nuyu borom yàllaay kese barke yow man xeexam la docteur bi nag dafa ma daf fan yii jëf ku baax ki du ñuy Sénégal njaay bu baax a baax. Mhm. docteur tey dañoo indi ay parti yoo xamante ni yow lañ ci am yaakaar yow mhm. yaa mën a dimbale askan bi yaa mën a dimbale ndaw ñi muy góor ak muy jigéen docteur tey da am parti bu ma bëgg ñu waxtaanee dafa am ñenn si jigéen ñi ñoo xam ne buñ gisee góor ku jantal bu mel ne man seen xel du dem ci dara lu dul tëddee ko lan ngay wax ñooñu. xam nga nag boo ma laajee ni ma daf jigéen ñi dafa am ci ñoo xam si danoo xaw a am faiblesse du si am na ci ñoo xam si danoo caga ngooy dangay jaar ci boo déggee loolu nag am na ci jigéen yoo xam ne si danoo am si góor ni mu amee ci jigéen ñi noonu la amee ci góor ñi waaye man jigéen nga ma laaj dama lay tontu waaye xam nga jigéen bu gisee góor am na ci ñoo xam buñ gisee góor li ñu njëkk xool ci góor li ñu njëkk a pour dem lambi ko mooy leen si ci mbii ci riche lan mooy loolu. mooy ñaari doomi limon yi nga xam ne day lang ca kenn du ko jongal. dinañ dinañ ci ñëwaat père yow yaa xam yow yaa xam. xam nga lu tax loolu maanaam am na benn rongin saari daraxin bu nekk ci jigéen loolu si biir la laaj ko ñi nga xam ne ñoo def wàllu médecin si digg googu ndaw si ne jàkk góor yi xool ko rek xolam day def te yuñ xóore sankan yuñ xóoru sankan mooy ci su ci sukku góor gi ci sukku góor gi bu fekkee mu sol silatement loolu mel ni dayu bay tamponné ndaw si da koy sentir pour mën koo obsession. yéen a ko gis mbokk yi yéen ñi ñi seetaan kii lim leen wax leer na. Mhm. ngeen bàyyi ci seen xel. kii di ma yónnee message. Mhm. li muy laaj mooy. góor gi nga xamante ni moom bu gisee jigéen rek Ablaye Ndiaye gi danaan jadd taxaw. day ko dal lan mooy. Ah. fajam lan moo koy faj kooku faj ko du yomb kooku góor goo xam saa su gisee jigéen bu dul soxnaam moom su gisee rek wala mu gis xale bu ndaw loolu mooy indi viol da taam pour incarne yàgg yaabul loolu ci góor lay nekk góor boo gisee góor bi dox naan nii naan nii ñu naa ko jantalmaan jantalmaanam des na yuqeeku gi am na benn siddit bu ñuy wax darmaan kéwréy see bu deen bu deen Inde ñoo koy gën a xam mooy loolu darmankoor see ci gu ku góor ki lay nekk bu gisee jigéen li mu njëkk a def lenn la yëkkati poqataanam bii poqataanu ndaw si laa wax de yëkkati loxo guus ba ban foog ne lu ne la koy def mu jël loxoom bu tedd bii lii xamoo nga lu ñu koy wax ci góor dañ ko royal dañ ko royal la jël ko ni ko nangam sàngam bañ xool nar koo teg ca cusiya cusi ndaw si bu ko ci tagee rek am na kon ñi ñi ñi taaxeerlu si cuus foofu lan mooy cuus cuus. cuus ñuy dégg nit ñi naan cuus cuus lan mooy cuus. booy waaw damay tiigal sa lu bon de. woo ma même. comme que dem nañ ba plateau bi paa bi commencé na yëg boppam docteur tey ñi laaj la ci beneen mbir mi nga xamante ni bëri na ci réew mi. Oh, bëri na ay xale yu ndaw yoo xamante ni nangooti ñee liggéey te loolu la ñuy def mooy góor ñi nga xam ne fu mu toog dañuy sentir sëy di yëg ci oto yi jigéen ñi. ñooñu lan mooy seen moo am ci rapaay jëlal moo am ci njaganjaay yi moo am ci car car rapide yi moo am ci sepeer yi moo am ci yeneen oto yi ba ci train yi sax moo ci am du Sénégal kese fu ne la ñuy mballoo guus duraat xam nga moo ko waral dindi xel buur boo xoolee kaw ba suuf dafa am benn kii bu ñuy wax dindi xel moom dindi xel boobu feeñ mi ngi fonctionné xam nga lu xelam di def maanaam yuutu xale bu jigéen bi rek laal ndax lan mooy ndetamaay. ndetamaay am na ñoo xam si jigéen ñoo xam si bu boo leen gisee ñuy dox. ñu ñoom ñooy góor ñi sol fiisoo wala ñu sol benn baa baa boo xam ne dafa woyof nga xam ne bu pos baa bi day foq nga baal ma ci wax ji si ndetamaay gi na ndàpp loolu tamit ba pare ñoom tamit dañuy violu góor ñi boo dee wax dëgg gi. foofu laa am ma doon conseil ci yow. waaw kon mbokk yi tey bu ngeen ñi gisee nga xam ne maanaam lii lañ leen indiloon ci plateau bi. Mhm. kii nag xam naa ne dina fi ñëwaat ndax askan wee ko soxla. Mhm. waaw ku am loo xamante ni métti na la wala loo xam ne yaa ngi koy dund mën nga ko bind ci commentaire yi. Mhm. kon docteur Ahmed Diop Fall Mbacké lan ngay tàggatoo. Diop Diallo jaaju Fall ma Samba nee na Fall. nee na Demba ak nee na dem Diallo nee na Yacine ñun. man pare naa lëfër kon nag sama gars yi xaar leen ko YouTube xaar leen ko Instagram xaar leen ko TikTok tele bu mag boobu nga xam ne maanaam mooy. Diop Fall 2 TV Diop Fall 2 TV.